mën a dugg foofu mën a mujj ne bi ne ne lu ngeen amati ci seen yàlla jooju te jot ca tëleen su ngeen koy sàkku tudd leen ma bu ngeen ma tuddee jot ca waaw lu mu mën a doon maanaam seen xemem téef ci garab gaa moom maam yàlla la te lonku jotu ko mënula leen a ba jot ca amatu leen jàmm ngir bëgg koo witt seen bolloos yi damm na bi ne na soppi leen mab lonku man gudd naa te du ma fàq lu ma yóotu jot ko lu ma kor mu daan ah du noonu kon nii la eh, sëriñ bi jamono bi neexul maanaam eh, eh, li nu tollool waaye moyens yi bari na tooñ yi bari na tooñukaay yi bari na waaye yàlla it indi nay moyen yu baree bari yoo xam ne nit mën na caa jaar ba sa borom jéggal la ndax téere yépp d'accord nañu ne sunu borom dañ na ci jaam boo xam ne jaam boo xam ne ne na yàlla wax ne na budul woon ak ñi tooñ di baalu budul woon ak ñi ma tooñ di baalu kon yërmande du ma am fu ma ko dugal te bind naa ko ba noppi su ñépp jubalee jub yërmande du am borom kon nag di juum di baalu mooy mbir mi di fexeel nag sa bopp ak say dëkkandoo lu war a mën a ruusal bàkkaar yi am na solo te lii ci la tant bii ci li téere yi bind d'accord ci mooy bu ëllëgeeg jàmm ñeen fukki kër ki ndeyjoor dinañ leen baal baal ña ko dëkk baal ñeen fukki kër ci càmmoñ baal ña ko dëkk baal ñeen fukki kër ci kanam baal ña ko dëkk baal ñeen fukki kër ci ginnaaw baal ña ko dëkk nun ñii fi daje nag kenn ku si nekk bu subaa candidat nga boo xam ne quarante personnes yi ngay jëkk a dajal ëllëg yàlla dina leen jégg ñun ñëpp nag waaw bu Yunus a jógee jaar ci Soumaré jaar ci biir côté Idrissa Diop jaar ci biir côté ñii jar ci bii côté balaa ngoon kenn ku ne daje quarante nun ñii nga calcule ko beneen tante bu mel noonu am feneen beneen tante bu mel noonu am feneen ñooñu ñu ngay dimbale nebi te ñu ngay xeex ak iblis waaye nag samedi bu ne rek ñu tantal ko neneen rek duñ ci rax dara duñ ko jaxase kooku du affaire du xel mu rafet dafa indi mbir ëllëg te bismillahi rahmani rahim ñeenti baat la bismillahi rahmani ñeenti baat la du noonu bismillahi bismi laahi rahmani rahim du noonu bàkkaar yi nit di def ñeent la amul juróomeel ban ak ban bu guddi ak ban bu bëccëg boo tey boo sëy des na ñeenti baat yooyu boo ko waxee mu lekk ñeenti bàkkaar yooyu waaw di aj <laughs> Malik nee na waral na nee na wa ranna rannatan ibliisu na sëñ bi ranna ibliisu rannatan alaaji maa li wax de ina ibaatihi benn ورن إبليس رنة إن اللعن ورن إبليس رنة إن الرجم Iblis nga ne moomu ngeen di dégg ñeenti yoon rek la ko paxte ma sa dal bu ko jaral duuxlu ak yuuxu paxte bu si ne alaaj maa dina wax la ko waraloon nga xam ne loola bari na doole ورنا جوينا رنا تن اك اونك كوكا ديف ابليس كان لا اين اياباته كلو باكو يالني اعبد تو واتشل يو واتشل اجنا يا كو اندال اجنا اك نيغا بروبوغان بانيو ديف لي ماتير مو اجنا ميلون خام كو جيمي موزانا دونا كروك اونكان اكاين اك لعنه ربكم يعلم ايه ان عليك لعنتي الى يوم الدين alaaji Malick ne onk na keroog onk gu bët ci suuf yi juróom-ñaar dem ba tax sa ars gu amee doole ni dënn ba li yàlla bind yëpp baj baj ñaari om ak kañ war régime ba ko yàlla ne fa in alayka laanatiya fa innaka régimun keroog it onk na boo demee jeexlu saar wu ñuy wax saat téere yi ne nañu juróom-ñeenti xaala yooyu yàlla waxanteeg iblisu xaala yooyu ne nañu ku ko bind téere bopp bopp dootu la metti bu la doon mettit bala xaala joo ci dégg nag yàlla la mbaa iblis suñ borom dafa nettali Moustapha ne ko fàttalil jaam yi saay-saay ba ñuy wax iblis sunu jant ba li nu jotale du dara lu dul teral doomu aadama rek ak teral la dañu ma jaamu ba naaw defe ne mënatuma am ku leen gën ma xëy nar a bind sa leer gi ma bind sa leer gi denc ko nar bind ku ñuy wax aadama def ko mu mel ni sawataas mooy këyit gi laxas wurus soxlawuma aadama soxlawuma nooyin soxlawuma infe soxlawuma sakriya soxlawuma yaaya dama leen servir rek mu di sa ah, ah, bu ma bëgg laxas sama wurus wi te yaay wurus wi bi Sowétas bi pare rek laa jox bi Iblis ak kumaandaloon na leen Sowétas bi waxuma ko moom waaye la mu nar a defi mooy seen sang na ngeen toroxlu ci moom ñu bañ ci laa ko defe la ma ko def dama ne inni basirun wa is qaala rabbuka lil malaikati inni alaqtu basaran min tiinin fa isa sawaytuhu wa nafaxtu fii min ruuxi ba mu pare rikk fa qaamu saajidiin ma def ko fa sajada al malaikatu kulluhum illa iblis manako mo ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين فوف لا واخ بكم خارا بابو إبليس أنا خير منه سما بروموي خلقتني من نير وخلقته من طين خالا يا الله يوخ فاخرج منها فإنك الرجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين خالا إبليس وقت ربي فانصرني لا يوم يبقصون قال يلا كل آه ابليس كل الاخوه انهم عجمين لا يبارك من المخلصين خال فالحق والحق اقول لاملان جهنم منك ومن اتبعك من المعجمين قل اسالكم علي من اجر وما انا من المتكفرين الا ولا سكون العالمين ولا تعلمون نباه بعد ايدي بايا لاجي مالك كربك keroog ba loolu fa innaka régime onkana keroog ba mu ko ne ibit onkana a ah, keroog ba mu ko ne wéy naa layka laanatiya keroog onkana ñaata onko ngoog hmm? waaw kañ ñu ne Maodo yooyu rek la mu ne am na bu ko ñeenteel bi ko ñeenteel nag la la la la One. koor baa noonu mu onke ñetti onke yi ran na onkaat na ay daan lu waral bu ñeenteel bi mooy inama nazalat umul kitaabi keroog ba bismillahi rahmaani rahim wàccee tax mooy dafa naroon yóbbu ñëpp safara mooy bëgg-bëgg te yëg na nag musiba am na ndax ñeenti baata ngi ku ko mën dootoo lakk te mu yomba mën looloo ko tax a jooy yonent bi nee guddi gi ñaan gi xam nga ba ko yàlla joxe service ba noppi may nañu ko priorité mu promenade xool ajam waaw mu ànd ak lu mu xamul laaj ko ko fu jibril kage it ñu yebal keneen mu boot loxoom di promené ci mbeddi àjjana yi jigéen urul ayni yi di seetaan naan ngeen ji mbindeef a ngi kii ci xeetam wi la ami borom kër ëllëg misi gi àjjana yëpp tëgg ñu bi bunte yëpp darapo yi pat pat muy doxantu nag de traverse rigole bu bari ndox di def tëf tëf tëf tëf tëf di dem ndox mi yépp it rigole bi meew mu weex tàll la mu continuer masalan ba am benn angle traversé waat beneen rigole rigole yooyu bokk sens bu ñu xel li jëm booba nag sàngara rek la bu dul mandee te dagan mu dox tuuti traversé beneen rigole bu doon lem gu ñu segg galaase ko muy tëf tëfi rek di dem mu dox tuuti yem ci uh, ndox moo xam ne dañ ko filtré di dem mu ne waaw jibril yu bari yii ñu traversé rigole yi ñu traversé fu ñu jëm ak fu ñu jóge jibril ne ko fi ñu jëm de xam naa ko waaye fi ñu jóge xaw ma ñoom ñëpp ñu ngay mélangé ji ca kaw sara ji yàlla dencal sa jaam sa xeet waaye nag fi ñuy déparé xaw ma ko waaye yow mii nu ëpp dara ji ci yàlla lu tere nga laaj ko ndax nu xamaale ko sallallahu alayhi wa sallam taxaw jibril ne malaaka ne ci suñu kanam deret ne ko maa ngi ci sa position borom bee ma yebal ne li nga laaj ma wan la dal ne Moustapha gëmmal nabi gëmm mu ne ko xoolal nabi xool ne ba ma xoolee yem naa ci xubb xubb moo di moo di taax taax moo xam ne li xar sa di rëy ak kursu yu asamaan yi juróom-ñaar ak suuf ku leen boole woon sànni ko ca taax mooma dina mel ni jaaru bu rot yàlla nee na mel na xombaan ci bunte taax mi ñu ngi ko tëj xomba ma mbindee fi yàlla yépp bu ñu daje woon pour yëngal ko duñ ko mën a yëngal malaaka ma joxoñ ma ne ma li nga doon laaj fii la jub ne ma dawal sama bët ca tàkk fondation ba gis lem ngi génne ca côté gauche ba soo mi génne ca droite ah sàngar si génn ci benn koñ bi ndox mi génn ci benn koñ bi ñu ngi mel ni nag machine ne ci biir taax mi di yëngu-yëngu goo xam ne maar de taali yéef yooyu di génn ci koñ yi def man a ah, fii la place bi jóge bëgg a walbatiku malaaka mi ne non yàlla na nga dugg ci biir visité ko mun a fa maa jaar ñu ngi ko tëj gardien amu fi yoru ma kele mun a ko yàlla na kele baa ngeeg yow منقول كلا بمن بسم الله الرحمن الرحيم مصطفى وقرك خمو بن التل من انت دي بي جبل تاخو جبل ليكو نبي وركو وركو با بغا ملاك منكو دوغاتال تا نيوال سا نبي ديل سي وات خول كو خول كو بغا ديم منكو يالا نغا ديلو وات تا خول تا نك نيوال خول با جيس نيغا بيند با سين mimara yaal mimara googa ci diggi yaa mimara ga ndekete ci la lem gii génn mu continué xool gis lii lam-lam alsaxer lam-lam alsaxer di mbalk ndeke ci digg ba fa la sàngara say génn ne bi xool gis ab lonk miim lif gaaj nëra miim lif gaaj googa la ndekete ca la sàngara say génn mu xool gis ab lonk yaa mimara mimara gu mujj googa ca la ndox may génn moo tax ñu bëgg booy bind bismillah rahmaan mi yooyu nga bañ ko fatt mi mara googu bàyyi ceeg pax mi ak saxar gi bàyyi koog paxam mi ab lonk mi lif gaaj bàyyi koog paxam mi mi mara bàyyi koog pax mi pax yooyu paxi sekkare la yàlla ne ko nag ñeenti ndox yi nga doon laaj ñu ngi génn ci ñeenti tur yi sa xeet bi ku ci mën ñeenti tur yi dinaa ko nandal si sama ndox mi bés penc ak lu moom mën a def fatiha juróom-ñaari aaya la safara juróom-ñaari bunt la boo ko taree aaya bu ne pattal la bunt nga libre looloo tax nag iblis jooy moo tax tur yooyu ku ko mën doo lakk dafa am benn waay bu baax sëriñ ah, sow mu ne xool naa bis mi waxtaan ceeg sama xel baa gi di ma niroog barrun siin gi di ma niroog chitrun miim gi di ma niroog maxfiratu njëkk la baa gi siin gi sutura la miim gi njëggal la ne sama xel ma ne ñetti jëf yu foor yooyu foo ko yaakaare koo ko yaakaare ne ma ne ko xoolal tur wi topp ci mimara gi ne ma xool ko fekk muy laaw ñu ne ah yow xër nga di yooyu ñetti yépp nga yaakaar ci kenn ko te defaloo ko dara mu ne xoolal tur yi ci topp mu xool ko muy rahmaani ak rahimi mu ne ku mel noonu mën naa defal kooku lool amin bi jaay rasulullah waaw kon yal na nu yàlla saxal saxal leen wërsëg yi yiñ ciy coppati di ko sànnil mustafa baax na lool dina lewal yi ci des dina wëggit yi ñëw dana lewatal yi jàlloon te jàlluñu woon jàllin wu jaadu yal nañ ko fi yàlla tan yàgga tànt yal nañu fi yàgga daje yal na nu yàgg yal na nu yàlla yàggal si kaw suuf ginnaaw bu ñu tabbi ci suuf it yal na nu yërëm am na seen mbokk mu ñëwoon ci mawlud bi yàgg na fi si lëf ba am ngant tax muy dem moo fi bàyyi woon ñaari téeméer yi def ko galagul Moustapha muy alaaji Baara Jóob seen mbokk moo muy dem léegi di sumaare moo fi joxe ñaari téeméer yooyu ngir galagul Moustapha sallallahu taala alayhi wa nun ñépp nu bokk jàng fatiha bu sell def fukk ak benn ci lixlaas ñaanal ko ñu ñu bokkaloon mbir mi te fekk wuñ ko fu julit nekk te dee soixante quatre ak ña deewoon te maam aadama betey yàlla boole leen may leen ma may ko sunuy way jur ñu yéene waale ci it mu yéexenu ginnaaw bu nu dee it mu may ñu njéggal bismillah bi waxoon léegi Amat Lamine Gaye dëgg la moom ku ko soxlaalul dara ngir lu mu la jaye it léegi am nga ku ko soxlaal dara ku mu mën a doon nag soo soxlaalul yàlla dara ngir lu mu la gëlëmale mbaa lu mu la jaye am nga ku ko soxlaal dara ndax suufam si ku ci dugg soxlaal ko dara waaw kaw suuf gi nag nangu na lu caaxaan kaw suuf nangu na caaxaan waaye biir bi dëgg rek la laaj bilaay buñ ko ŋàyyee ba salax la ci ñibbi loo nekkoon lu dul dëgg keroog di kon nag boo amalul yàlla soxla yow mi ci kaw suuf ngir suuf màttagu la war ngaa am ci biir suuf ku am ci yàlla soxla ba tax nga gestu ko kon dëjaay bi ku fi dul woon jëli tiyaa ba sax te mu mën a jural jàmm ñi nga am ci biir suuf jàmm it mu jara mu jara ñàkki nelaw waxumaa ba nga xamee ne yépp ñaara ngi e, yàlla nu yàlla dimbali ah te sunu borom dëgg-dëgg naqari wu la defanteel naqari wu la defanteel fii mu jaar ku fi jaaroon ku moom yëf yi gën a dag waaw ku la mës a ilif ku dul yàlla teg na lu la sonnal te kilifteef gi démb rekk la mbaa bërki démb rekk la ginnaaw ëllëg mu deñ moom moom moom sa maam moom sa maamaan moo la bind moo car asamaan moo la may noo moo la may bët yoo gisee moo tàllal suufam si nga di ci dox mu teg la tuutee tuutee tuuti yuridu laaw bikumul yusra wala yuridu bikumul usra xam ngeen na ku posé woon ñaari nag yi bët ku yàlla soo laajee kubbal kenn du ko am mu joxe ko ci dara balaa nga koo xam rek nga dem ba sa bët bëgg a sa sa gis bëgg a wàññeeku nga seeti docteur yi ba ñu defal la consultation ba génne mais ba génn ba bindal la ordonnance nga seet maam yàlla nag bi mu la ko joxee laaju la woon dara dala ko joxoon completement rek ne la demal ci dara ci dara nga dem ba yëg ne mu ngee bëgg wàññeeku nga seeti docteur mu bindal la ordonnance fu ne nga taxawaalu fa pour ku la dimbali te xëy na kat day da koy jéem a dabuwaat rek wérul mu maye ruu ak fooraayam bi ci dara maye bët ak fooraayam bi ci dara maye tànk ku ci xëy na awma dara xarab nga yàlla yaa ngeeg yaa ngeeg cinq cent mille francs yow mi naan amula dara waa ji xëy amul dërëm bay respect ma ngeeg cinq cent mille francs parce que loxoom ndey jooram bi ko ko daggoon ci cinquante mille mu bañ kaay ma dagg ko cinquante nga bañ mu ne loxo càmmoñ bi tàppit cinquante nga bañ mu ne ma luqi si bët cinquante nga bañ benn bët bi cinquante loolu du deux cent mille xaar yooyu mil nga yor ko mboolooree noonu tey jooy na yoruma dara te ki la ko jox tegulaat dara dig la nag geneen pay góob googu sant service bu tuuti kooku naqari wu la jubal keroog ba mu ne julli yu juróom laa ko def ba fii mu ne yokku buur du buur du topp du waxaat lu mu wax rek ci lay sax kookoy buur ca maam aadama la doon julli yu juróom ca bi ba tey yokku ko te ku musa oote lu wéet bu xumbee nga yokk ca association yi sax boo mujjee dabee ñu son ñu yokkal la ñu yokkal la lëf waaye impôt bi dërëm la woon fu mu tollu léegi ah. ñetti sànq dégg naa mag ñu ne impôt bi ñetti duusu lañ ko daan wax

te naqaree la ràññee waaye nag liimaan jëfi xol la islaam jëfi saayir la liimaan dafa nëbb islaam saayiri liimaan ci xol lay doon mooy tasdiqu kawnu mawlaana tabaraka wa taala ilahan waahidan kooku moo di liimaan sa xol bi dëggal ne yàlla kenn la mooy buur bi kookooy liimaan moom kenn nag léeg am ku ko yor te du ànd ak lislaam lislaam mooy nangu di sëgg ak siggi di wax ci sa gémmiñ laa ilaha illallah léeg am ku ko am te du am liimaan léeg yàlla baaxe ba mu dàmbale liimaan ak islaam borom liimaan bu àndul ak lislaam kooku yàlla mën na ko fay ndeem la teree feeñal lislaamam ngànta la xam ne bu ko feeñalee ñu dóor ko mbaa ñu rey ko mbaa ñu reyal ko alquran junj na ko ne na illa man ukriya qalbahu wa qalbuhu mutmainu bil iman koo xam ne kii dañ la forcé sax nga wax bax yéefar te xol ba di liimaan kooka mën naa ko baal ëllëg ki may duma kañ mooy faman saraa sadrahu a ah, a ah, a ah, la la la ayati lati xalaqtul aana ilaa man ko xam walakin man faraa aywa fa alayhi qadabun ci tey tey nag continué ci ci kéefër xam ne li ko ko teree nëbb du lu mu ragal du dara moo tey def ko kooka laa amal affaire nga yëg nag ne liimaan bu borom doxalul lislaam ba mën naa am ëllëg du ma njéggalal yàlla ëllëg waaye ci àddina yéefar lañ koy tudde buñ ko dabir dóor ko bu yoree lu mu war a jël ñu jël ko ki wane nag lislaam ci kaw te biir bi dul amul islaam kooku dina bénéfice ci àddina parce que kenn amul droit dóor ko kenn amul droit jël yëfam waaye bu dee dem safara kooku tudda naafeq jullikat bi te xol ba gëmul kooku mooy lislaam bu àndul la ci liimaan kooku booy jiyaar ba yem ci moom doo ko sañ a ngir laay laay laa ja muy wax doo sañ laal aleelam ngir laay laay la laa la def ittaxisu aymanahum junna fa sadu an sabilillahi kooku kenn ko laal waaye bu dee lakk kële nag mën naa am mm, bu dee yàlla may ko àjjana ndéem la ko teree feeñal ngant